waaw tey dañu fi nekkoon si ab jotaay bu am solo boo xam ne ay centrales syndicales yi euh, gën a am baat ci réew mi ñoo woote woon pour waxtaan ci mbiru protection sociale protection sociale nag euh, boo ko bëggee firim fàccee ci wolof neel naka la ñuy fexe ba liggéeykat ki liggéeykat bi ñu aar ko ci loo xam ne mën naam ñëwagul waaye dañ ko war a waajal lan moo ñëwagul te ñu mën ko war a ko waajal mooy feebar day dab nit mooy euh, euh, doom day am day ñëw nest pas muy bànneex mooy lan mooy euh, màggal magal day ñëw mooy itam ñaanuñ ko yàlla waaye dafa nekk si dund dee day ñëw loolu lépp nag dafa laaj ñu waajal ko liggéeykat bi bi mu koy mën di ko tal ñuy fel ci amam as loo xam ne da koy teg fenn nguur mbala ki koy xëyloo yokk si dara ñuy waajal ëllëg muy lu neex muy safaan wa ñoom nag ñu naan comme loolu dafa am protocole boo xam ne à l'échelle du continent nangu nañ ko naka la ñuy waxtaane fii waxtaane fii lëloo ko ba ñëpp gën koo xam gën ko no nangu comme ça réew yi mën ko ratifier maanaam euh, assemblée nationale yeeg yooyu mën ko mën ko signer mu nekk loo xam ne ay charte yoo xam ne dañu ci dañ koy wéyee loolu nag euh, buñ ci wootee gouvernement bi ñun dañ ciy kontaan ndax euh, président Macky Sall ñëpp xam nañ ne moom xolam nekk na bu baax a baax si sàmm Euh, liggéey boo xam ne liggéey bu jag la liggéeykat yi mooy li ñu naan travail décent ci loolu la nekk ba tax na tam nameel bi mu am pour liggéeykat bi yekkeeku maanaam liggéeyam gën ko jëriñ moo tax vraiment avancé yi ñu def am nañ solo ba waxtaan wi xam ne moom la ñu am tey nekk na waxtaan boo xam ne ci boobu gaam rek la dugg. waaw ñaaree grève bu amee day nekk euh, rupture de dialogue maanaam waxtaan bu amatulee la ñu naan grève am na. Euh, gouvernement bi nag dafa ubbeeku autour du premier ministre di waxtaan ak mbokk bi ak njaboot bi yëpp waxtaan bi loolu la te grève boobu li ko laal nag mooy. ab revendication boo xam ne mënees na ko dégg ndax revendication bu liggéeykatu collectivité territoriale yi mooy revendication boo xam ne li ko lal mooy amélioration yi am ci secteur payooru si ñiy liggéey ci public bi ñooñu tam ne ay liggéeykat lañ ñun li nga xam ne am na fa lay ñun jàpp nañ ne war nañ ko am fii mooy loo xam ne mën nañ ko dégg premier ministre jox ci ay tontu ñu nekkoon nag di xool euh, ñan la wundu naka lañ leen di ràññeetle ak nan la ñuy def ba yokkute yooyu am Euh, li ci am nag mooy grève moom de 96 heures nekk na lu xaw a gudd mooy fàttali bépp liggéey kat boo nee man damay sóobu tey ci grève mooy bés boobu nga soobu ci grève da naan bés boobu moom maanaam suur nga sa payo ma jàpp na man calcul aayuma ci lool élément dina moo xanaa 96 heures de grève mooy ñaata fan ci semaine bi dama xamoon nag bu dee ñeenti fan ci semaine bi mbala juróomi fan ci semaine bi nee man mi xëy di liggéey jàpp naa ko fay kenn fay li des semaine bi bariwul may jàpp mooy woo mbokk yi rek nañu xoolaat bu baax a baax yenn yi ñu ni neen la defe naa ne bu ñu waxtaanee rek bu soobee yàlla buntu na feeñ am nañ ci yaakaar gouvernement bi en tout cas mu ngi réaffirmé ubbeekoom ak yaakaar bi mu am ne bu ñu toogee gën a waxtaan gën a gindeeku bu soobee yàlla euh, solution na feeñ merci